عبدي وشكري مع الكل بيسارا لو إذا دون سقط عند سرسارا نبينا مد نور الأنبياء والنور رسول الله عند ربيا كتابتي أحمد ابن عبد الله غسنتي وسانني أن لاي شد بشري مكاتبة أمرنا ميسرا لما ذات في القرآن ونبي ما جاذ لي بسائري والمخفي هداني الإله بالكتاب وبالنبي بلا إتياب ربي الإله ونبي أحمد وسيلتي وين المحمد كرامتي كوني عبد الله قديم عبد الله ابن عبد الله رسولنا أحمد سعد الإله زلالي وكفى در الله جزاء منتقى خير جزاء في كل سات وساعة جزاء bitu bi la ilaha illallah shiran wala ilaha illallah bitu bi la ilaha illallah shiran wala ilaha illallah ya rabbana innal wara tadarru li awliyaika ma li asbaa يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك ما ليسمعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وأمنا يا يا من تعالى لم يكن كفانا يا الله يا قريب يا مجيب زل على الذي به تجيب زيدنا ذي المعجزات بسلام بلا نواس السهب مسازي سلام وكن لأدر وكن معي وكن لزايخا فوق مرامي بكن وكن يا دهر وكن مهي وكن لزايخا فوق مرامي بكن وجاء بجايات سافيا لا تبي موجور دافيا واجعل بجاه عيات سافيا لك بي موجور دافيا بسم الله الذي القرآن قد نزل منه بدار وأرجو كان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازمه العلي والأزاب والفدال لله قد أيضا ويغفر لي ذنبي ويستر عيبي بالذي فديلا لا kii toog tey di Serigne Sidi Mbacké moo fi Cheikh Mahamadoul Mountakha gis nga njaboot Cheikh Amadou Lamine Bara yar bi ñu indi ak teggin yi teggin yàgg na kuy mbind ndax Serigne Sidi mii li ñu koy mag mag mag waajur la ci ñoom moo tax nu bëgg ñëpp dal te ngeen déglu su ko defee ñu continuer programme bi fuñ ci toll leeral ko ay kilifa dañ fay ñëw te war naa am ñu jël ay kaddu ñuy ñaanit ku jël kaddu gi nga limité li nu bëggoon am nan ko ba noppi yenn sarsaara ca mbooyama yenn sarsaara ca naaj wa sooroor ba waaj a taxaw nu xëye fa mu indi sëñ Tuubaa indi nu ci kilim yii day wan ni sëñ Bamba rek moo fi ne kon noo ngi ñaan ñëpp déglu bisimilah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi bokki julit yi sëriñ su tedd si bokki taalibe bi ginnaaw bi ñu sant yàlla suma boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal mawlaana cheikhul xadim ñu ngi leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ñëw ci bés bu mujj ci yëngutu Sarsara ci atum 2024 ci jotaay bu tedd bii Cheikh Sidi El Muxtaar ibnu cheikh Mouhamadul Mourtada jiite ko ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw ci turu cheikh Mouhamadul Baara moom xaadim rasul kon jotaay bi dañuy ubbi nii nii la kàddu yi war a tëddee insha allahu dañuy ubbi ci alquranul karim bu ñu noppee ñu jox sëriñ Sidil Muxtaar mu ubbi kàddu gi bu ñu noppee ñu jox komi sëriñ Mouhamadul Amin Baara Mbàkke mu wax bu noppee ñu jox monsieur l'ambassadeur bu Sénégal mu wax bu noppee ñu jox ministre bi fi teegal teewal wàllu njàngal islam ci Mauritanie jotaay bu njëkk bi jeex bu jeexee gannaaw gi jotaayu ñaareel délégation Sénégal yi ñoo ci tege bu ko defee ñu ñëw kenn ku nekk sëriñ bi daa wax danañ la jox kàddu incha allah kon jotaay bu njëkk bi noonu lay tëddee allahuma salli ala sayidina muhammad alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq nasir ilxaq bilxaq alhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim fi hadihi alxafl almubarak hadihi alumsiya almubaraka بمناسبة مقر صرصارة النسخة عشرين وفي هذا الحفل البهيج الذي يترأسه الشيخ سيد المختار مبكى بن الشيخ محمد المرتضى بن الشيخ مد بومبو رضي الله عنهم بأمر من الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى بن الشيخ محمد البشير بن الشيخ مد بومبو حفظه الله ونصره وبمساعدة من دائرة أطر الشباب المريدي في موريتانيا واتحاد الدوائر المريدية في السنغالية في موريتانيا تنطلق إن شاء الله فعاليات هذا الحفل المبارك سيكون إن شاء الله افتتاح هذا الحفل بقراءة مباركة مع الشيخ علي صيارفان فليتفضل مشكورا قراءة مباركة من آيات من القرآن الحكيم مع الشيخ علي فال تقماطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرثا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وفسر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سعادة السفير السنغالي سعادة السفير الإيراني يمثل السفير المغربي أصحاب السعادة السفراء وممثل المنظمات الدولية أصحاب الفضيلة مشايخنا الكرام أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باسم الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ونصره أتوجه بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس سيد محمد بن الشيخ الغزواني ولأخيه فخامة الرئيس سيد بشير جمعي فاي والحكومتين الموريتانية والسنغالية لا مناما في ليلة القدر في رمضان 1321 هجرية مقارنة ل 1904 فالصالة التي تمثل رمزا للعلاقات الأخوية الراسخة بين موريتانيا والسنغال وتمثل رمزا للمقاومة ضد المستعمر وضد الظالمين هذه المقاومة الفنية التي وصفها الشيخ أحمد بامبا خديم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد صرصار تلك اللقانة المباركة التي يقول فيها الشيخ أيضا حمدي وشكري لمن كل به صار له رضا من سخط عند الصرصار له ثنائي ورضواني بلا سخط مثقالا من الأيمان أثارا لله كل لدى آبان مكرمة منها ارتحلنا وفيها دوما زارا إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارة فارقوا دارين أوزارا ينعقد موسم صرصار في نسخته العشرين هذه تحت الشعار سلامة الشيخ الخديم تجاه العدو في دعوته للتوحيد ومنحة المسلمين جاعلا من الآيات قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون استعارا له waqad ixtarna an yakuna cheikh Mouhamadul Amin Baara ibn cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu shaxsiyatul musim li hada al aam fa cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacké min akaabiri al ulama wal awliya shaa'irul mufliq adibul ulama wa aalimul udaba wa mithaalu lil muriidi saadiq hada cheikh alladi afnaa umrahu kullahu kullahu fi xidmati al islam wal muslimin lam yakun umruhu tawilan min xisaabi zamani fakaana faqad kaana aridan bi xisaabi al-intaaji al-ilmi wa imaari al-ard wa maa yanfau nnaas wa natadakkaru bi duaa bi ridwaan wal magfira ibnahu al-xalifa as-saabi li tariqati al-muridiya الشيخ سيدي المختار رضي الله عنه الذي شهد الطريقة المريدية في عهده المبارك ازدهارا كبيرا fa tariqatul muridiya taqumu ala al ilmi wal amal qala cheikh ahmad bamba radiallahu anhu al ilmu wal amalu jawharani li xayri daarini ajmaani wa tawajjahu bi jazili shukri ila kulli man saahama fi injaax hada al musim wa asalu allah tabaraka wa taala an yamunna ala baladin baladay baladina mauritani wa sénégal بالأمن والعافية والازدهار وسائر بلاد المسلمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بركة الله وعلم اختتام موسم سرسار المبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى لي بحق الأسماء من جاء dégloo alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fadilata cheikh Sidi Mbacké أصحاب الفضيلة والمعالي ممثل السوايا والطرق الصوفية سعادة سفير, سفير الجمهورية السنغالية سعادة سفير المملكة المغربية سعادة سفير الجمهورية الإيرانية حضرات السادة وسيدات أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدني أن أتناول الكلمة أمام حضراتكم في هذه المناسبة المباركة بإسن وبمباركة من صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنتقى مكة الخليفة العام للطريقة المريدية وبالنيابة عن فضيلة الشيخ أحمد المختار مكة xalifati cheikh Mouhamadul Moustapha wa an fadilati cheikh Mouhamadul Moustapha xalifati cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke ibnu cheikh al Xadim Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhum wa anil wafdil muhtaram al mukawwan min afraadi usrati cheikh Mouhamadin al Amin wa ahibaihi wa muridihi wa ala rasihim fadilatu cheikh Abdoul Karim Mbakke خليفة الشيخ عبد العزيز بارا وفضيلة الشيخ بارا مبكي ابن الشيخ عبد الكريم وفضيلة الشيخ مودو بارا مبكي خليفة الشيخ عبد الخديم والشيخ حمزة مبكي ممثل الشيخ أحمد المختار مكي خليفة الشيخ محمد المصطفى واسمحوا لي في البداية أيها الإخوة الأعزاء أن أقدم باسم الوفد أسماء آيات الشكر والعرفان لأصحاب المبادرة لهذه المناسبة المباركة ولكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاهها كما أعبر لكم عن مشاعر السعادة والامتنان لاختياركم أسرة الشيخ محمد الأمين بار مكي ابن الشيخ القديم ضيوف شرف لهذه السيارة السنوية المباركة أيها الإخوة والأخوات لا يخفى على أحد ارتباط هذه البلاد بالتاريخ, بالتاريخ الطريقة المريدية وبالتاريخ مؤسسها الشيخ أحمد بامبا خادم الرسول فلا يمكن لأي متحدث منصف أن يتحدث عن تاريخ الطريقة المريدية أو عن تاريخ مؤسسة مؤسسها بدون الذكر موريتانيا فالشيخ أحمد بامبا خادم رسول كان يكن لهذه البلاد ولأهلها محبة خاصة لما تميزوا به من علم والصلاة ولذلك كان يسميها بأرض الصالحين زارها مرتين على الأقل الأولى كانت زيارة ودية التقى فيها بعدد كبير من علماء وشيوخ البلاد تبادلوا خلالها أبيات شعرية نفهم من معانيها حب الشيخ وتقديره لهؤلاء العلماء الأجلة كما نفهم منها مدى احترام ومدى احترام وإكرام أهل هذه البلاد للشيخ القديم رضي الله تعالى عنه أما الثانية فهي التي وقعت بعد عودة الشيخ من غيبته البحرية بقرار من من السلطات الاستعمارية الفرنسية التي اعتبرت إرسال الشيخ إلى موريتانيا نفيا وعقابا له في حين اعتبره الشيخ موعدا لتلقي الحدايا والمواهب الإلهية وللقاء حبيبه ومخدومه صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه بإعطائه الورد المأخوص من الله بواسطته صلى الله عليه وسلم وفي هذا الصدد يقول الشيخ من ظن سيري غب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيشذي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو التتيب العلي لي عمره lam yaku sayru ak sasin siwa jaza man liya qaada baadu waadan an jaza wa hakaza qad tamma alwaadu alilahi للشيخ في موريتانيا فقال قد جاءني السؤل من ربي بتكراري لا سيما عند بئر الخير جراري وخلال فترة وجود الشيخ في موريتانيا ataahu nnaasu min kulli hadbin wa sawbin wa laqiya xafaawatan kabiratan min tarafi lmuritaniyin wa madahahu alshuaraau wa kasura saairuhu walaakisuuna minhu wa fi hasa sadat yaqulu cheikh hamdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duuna suxtin inda sarsara lahu thanaai wa ridwaani bila saxatin مسقاد لي من بني ديمان أنصارا لله كلي لدى آبار مكرمة من حر تهلنا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو سارا ولضيق الوقت نكتفي بهذا الخبر من الكتاب wa nashkurukum shukran jazila wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh sidi mbakke waliduna almuhtaram mumassil alxalifati alaami tariqati almuridiya fi hadihi albalad wa fi hadihi albuqaati almubaraka ci turu sëriñ abdul karim mbakke ak délégation bi mu àndal bàyyi ko ca sa mbokk ma di cheikh mouhamadul moustapha mbakke doomi cheikh sidil muxtaar di xalifa cheikh mouhamadul amin moo nu yónni bi mu nu yónni mi ngi jiital ci ndaw yooyu yi rakam ju mu doyloo mat ndaw sëkk jege ko lool muy sëriñ abdul karim mbakke mu boole ko mbooleem njabootu lenn ci njabootu cheikh Mouhamadul Amin defe naa tuddoon nañ leen léegi mu ni sëriñ Abdul Karim naan ak nun ñëw bu ñu ñëwee ñu teewal ko ci wetu mbokkam mii li sëriñ Sidi Mbakke moom cheikh Mouhamadul Mourtada cheikh Mouhamadul Mourtada sa way jur mooy sëñ Baara mooy guy mbind moom da doon guy mbind guy mbind di cheikh Mouhamadul Mourtada kenn ku nekk xamoon na ni am na ku mu sàkkoon ci njabootam tuddee ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké boo demee guy mbind ëtt yu bari boo demee Cheikh Mouhamadou Mourtala Mbacké ma nga fay daagu boo demee kër Cheikh Abdoul Aziz Mouhamadou Mourtala Mbacké ma nga fa boo demee kër Serigne Abdoul Ahad Bara Mourtada Mouhamadou Mourtada Mbacké ma nga fa boo demee kër Serigne Abdoul Khadim Mouhamadou Mourtada Mbacké ma nga fa boo demee kër Serigne Bassirou Mbacké xujja Jeng ñu koy gën a dàkkante Serigne Bassirou xujja boo demee Mouhamadul Mourtada Mbacke ma nga fa xatu waxtu wi tax na mënee suta lim lépp waaye loolu dafa am lu muy symboliser uuf bu sëriñ Mourtada uuf njabootu sëñ Baara xam ni seen way jur wa dafa teel a làqu mu téyal ko boppam xam ni kër sëñ Baara ñooy njabootu boppam cër bu nit am ci kër sëñ Baara Cheikh Mouhamadul Mourtada am na ko fa ba pare am fa cëru boppam bu mbokku la kenn sëriñ yi Cheikh Moustapha nee na ci kàddu sëriñ Abdul Karim li nga def rafet na rëy na ci moom lool euh, yëg na ko su ko manoon moom ci boppam mooy teew ngir nga xam li nga def fi mu ko toll ndax bis bii ñuy fàttaliku bi Cheikh Ahmadou Bamba Abdullahi wa xadimu nekkoon fii ci gànnaar ñu xam sabab yu bari yi ko taxoon a jóg ak li mu fi liggéey ak li mu fi bàyyi sëñ Tuubaa dafa am ñaari xayba xaybatul bahriyatul mubaaraka ak xaybatul barriyatul mubaaraka xaybatul bahriya ca Gabon la woon xaybatul barriya fii ci gànnaar la Mauritanie lu ci nekk ca Gabon da doon liggéey fii ci Mauritanie da doon jël si pay gi moo ko wax ci lu leer tey xam na bu wér jëkk muy dem ni moom am na victoire am na ndam ci li muy wuti te jógagul dinaa ci nett nett bu gàtt bu ko waxtu yu maye bi ñu ko bi mu jëflantee ak tubaab bi dafa am ndaw lu loxoom set dëkk fii ci ndar xamul sax sëñ tubaa dégg la am ci moom mësu koo gis sëriñ tubaa mësu koo gis kenn mësu cee gis ka ca des mu dégg ni sëriñ tubaa tàbbi na ci loxol tubaab bi mu dem jël jàllaabi bu wert bu mu yoroon dem ci sëriñu ñaan bu mu doyloo ni ko ahmadu bamba de dama dégg ni dafa amlante lente ak tubaab bi te jàmburub yàlla la jotewut ak kenn dara ma bëgg ma weexal la sama jàllaabi bii nga ñaanal ko yàlla musal ko ci ayu tubaab te xamul sëriñ bi loolu amee jamonoy dem ba sëñ bi ñëw ndar ci wàccaayu xaybatul bahriyal mubaraka bi mu ñëwee ndar notable yi nekkoon ndar def délégation dem di ñaan intervention ci gouverneur ngir bu bàyyi sëñ Tuubaa mu dellu ci njabootam bi muy dem mu ñu ñu ñu jaar ci kóok yi ma wax léegi ni ko yow kat li ñuy doxi mën nga cee ànd ndax lu baax la te ndaw lu loxoom set nga kon mën ngaa ñëw ànd ci délégation bi ñu demee gis gouverneur ni ko li ñu yëkkati mooy du bàmba mi ñu dégg ni yaa ngi jëflanteeg moom dañoo bëgg nga bàyyi ko mu delluwaat ca njabootam ndax jàmburub yàlla la li ngeen soxla soxlawu ko li mu soxla soxlawu leen ko kon jotewu leen dara tooñul kenn ca lam nekk la war a nekk te yam ca ma bëgg ñu bëgg nga bàyyi ko mu delluwaat ci njabootam gouverneur ni leen su nangoo bind signé ni bëgg naa dellu ci njabootam ma bàyyi ko mu dem ñu ni kon bisimilah ñu jóge ci gouverneur ñëw ci Serigne Touba biñ yégloo bam ni leen nañu agsi biñ ko jubee mu ni leen aaliyahum siyaabu sundusin xudrun wa istabraq te agsi yowmal xiyaam bu nit ñi dekki nit yàlla yi ñu gaa baax yi ay jàllaabi yu wert lañuy dekkee moom lañuy sol bu ñuy dugg àjjana ka weex la woonu jàllaabi moom xam ni sëñ Tuubaa tontu na ko te te accès bi biñ dikkee nuyoo sëriñ bi laaj leen lu nuy dox ñu ne ko li nu yëkkati day dañoo demoon ci gouverneur di dox tànki jàmm ngir bëgg mu bàyyi la nga dellu ci sa njaboot moom nag nee na soo nangoo bind signé ni bëgg nga dellu ci sag njaboot mu bàyyi la nga dem sëñ Touba ni leen yàq ngeen seeni tànk ñoomu jaaxle mun leen waaw boo dee jubale ñaar ñoo jàpp ni dañoo xuloo da ngay dem te ka nekk ci position de force nga jëkk a wax ak moom lu mu nangu ki lu mu nangu ki nekk ci position de faible faiblesse dana ko nangu man maa jekku te jëkkewu leen ma kon yàq ngeen seeni tànk ba léegi diplomatie weesu booy def médiation nga dem te ka nekk position de force nga wax ak moom lu mu la nangul ka ca des dana la ko nangu sëñ Tuubaa ni maa jekku te jógu kon moom xam na li mu doon liggéey eh, lam cey jëlee xaybatul ñaareel bi nag muy xaybatul bariya suñ boroom def ko ni liggéey bi Gabon la fay gi gànnaar la muy fii eh, fay googu nag moo tax mu ni man zanna sayriya qibbaami ak sasi misla masiir yi rasa ami jay sasi ku yaakaar ne bi may jóg ci atum ak sasi mooy jóg ba ma jógoon dem Gabon ci atum jay sasi ñooyam sabata kawnuhu jahulan xumra kooku dof la bal huwa tatyibul alili umra barab la boo xam ne suñu borom daf ma fay yóbbu appeese ma dalal sama xel ba mu dal mu jox ma may yàlla ya fa nekk lam yaku sayru ak sasin siwaa jasa man li yaqaada baadu waxdan jaza suñ borom daf ma ni demal gànnaar fay gi ma la war a fay la nga doon liggéey ca Gabon ma nga ca Mauritanie boo demee nga jëli fay ga boo déggee mu naan euh, lillaahi kulli la daa abaari makrumatin min har taxal naa wa fiihaa jàmm man saara waxul defe naa boo demee Sarsara di nga fa fekk benn teen sëñ Touba waxul benn teen abaaru makrumatin la wax dafa am nit yàlla yu fi nekkoon teen nag boo ko jàppee teen bi ñuy roojo ko goj baag bay génn di génne ndox day day day day day des na teeni nit yàlla ay xéewal la yu nekk ci biir yoo xam ne ndëxañteef la suñ borom ni ko am na nit yàlla yu nekkoon ca gànnaar liggéeyal yàlla ba suñ borom gërëm leen te kenn ku nekk xam na ni jëmm mooy tuxu waaye barke du tuxu mu barke leen toxu adduna bi baax na bu yàgg lu baax lépp jeex na jëmm yi ko liggéeyoon nag sallallahu alayhi mi yàlla jaarale woon ci lislaam jóge na fi bu yàgg ci saahir te lislaam bi mu fi andi woon mi ngi fi sëñ tubaab mi taxawal yoonu murit jóge na fi bu yàgg ci saahir te liggéey bi mu fi liggéeyoon ak li mu fi bàyyi mi ngi fi jëm may tuxu waaye barke du tuxu jëm yi nekkoon fii nag liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm leen bi ñuy dem dañ fee bàyyi barke bi ak teraanga bàyyiwuñ leen fi te yàlla du maye di nangu te li mu defoon mi ngi fi te may lëg mayu yàlla du yàqu suñ borom ni sëñ Tuubaa demal nga jëli loolee te dellu loolu moo taxoon sëñ Tuubaa ñëw fii ci gànnaar jël si fi may yàlla yooyu bokk na ci wirdul maxuus wi nga xam ni ma ngi ko jële ca Sarsara dina am tuuti lu ma leeral foofu na ñépp xam ni sëñ Tuubaa jiitu muy jot wirdu maxuus wajjatu kulli goo jiitu na wirdu maxuus wajjatu kulli boo ko bëggee xam demal ca wala xadd karam naa bani aadama ba mu defee ca gabon wajaatu kulli lil waduudi samadi boo ñëwee gànnaar ginnaaw bu mu jotee wirdu maxuus la bàyyi di wax wajjatu wacc yi di wax wajjatu kulliyati loolu na ko ñépp xam wajjatu wacc yi dafa jus yi la dafa partiel waaye wajjatu kulliyat yi boo gis ginnaaw wér du maxuus la ci la sëñ Tuubaa tàggoog wajjatu wa ci di wax wajjatu kulliyat yi fii ci gànnaar la muy ndam loo xamante ni réew mii ñu nekk di Muritani alhamdulilah biñ ko xamee téye ko jàpp ko bëgg sëñ Tuubaa bëgg ku wér ci seen xol yaatal njabootu sëñ Tuubaa ku nu gis nga jóge Touba bokk ci sëñ Touba ñu fàtte seen bopp fal la ngir yàlla jëmmi sëñ Touba loolu sëñ Moustapha Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine ci kàddug sëriñ Abdul euh, euh, Abdul Karim Mbacké mi ngi ci ndokkeel suñ mboolem mbokki Mauritanie yi nekk ci réew mi yépp sëñ bi mi ngi nuyu bu baax ambassadeur bi nga xam ni moo fi teewal senegal te ambassadeur cim réew état la ci biir état kon ñun ñi ngi ci sa loxo ndax ay sénégalais lañ ñëw ci biir Mauritanie te ambassadeur mooy am réew ci biir réew kon sa nekk fii ci réew mi ñu ngi lay gën a bàyyi xel sëñ bi mi ngi lay ñaanal sa nekk fii nga am ci ndam lu kawe njor yéen ñim fi nekkal di ay senegale te kenn ku nekk xam ni ci wàllu administration moo fi kilifa gi na ngeen ko déggal déggal gi mooy réew mii ngeen nekk na ngeen am conformité ak ci ni réew mi di doxe di liggéey te maandu lu seen yoon nekkul bu mu ca nekk taalib sëñ Tuubaa fu mu mën a nekk noonu la war a mel bu ngeen ko defee di ngeen noppal seen bopp noppal ko noppal seen kilifa yi ngeen bàyyi ci Sénégal li réew mi laaj ci ay loi na ngeen ci tënku te bàyyi ko xel te rafetal dundiin wa ngeen la waleen sëñ Tuubaa jàngal ca Tuubaa ñu def ko ci yéen yar leen ci fu ngeen dem na ngeen ko yóbbaale murit fu mu nekk day wane ci sëñ Tuubaa laa bopp ni mu koy wanee nag mooy ab yar ak i teggin ak nangoo liggéey ak nangoo bokk te mooy tudd sa yoon nekkul euh, ambassadeur u Iran ñi ngi koy nuyu bu baax noo bokk liggéey bi noo bokk diine ji noo bokk jubluwaay jërë ngeen jëf ci seen teewaay ci bisu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mbakke bi mamlakatul safirul mamlakatil maxribiyati euh, euh, mam mamlakatil maxribiya muy ambassadeur u Maroc moom kenn ku nekk xam na alaaka yi mu am ak Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi loolu ñu ngi lay dalal itam ci turu sëriñ Abdul Karim ci bisub Cheikh Mouhamadou Lamine baara Mbacke bi yéen waa daayira bi nga xam ni yéen a ànd ak sunu wayjur bu baax wi bi sëriñ Sidi di fédération bi seen bokk yi ngeen sàkkoon ci seen bopp féetale leen ak njabootu Cheikh Mouhamadou lamin baara muy daayira mu nawerul bundiaat ci njiitul Daam Fall li ngeen leen santoon def nañ ko taxaw nanu ci taxawu ba gën a rafet teral nanu yaatal nanu li war ci diggante nit ak kilifaam def nañ ko li war ci diggante nit ak gan def nañ ko na seen xel dal ci ñoom li ngeen leen waxoon def nañ ko yéen ñi ci des itam sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax ndax lépp lu ngeen fi def bisub Cheikh Mamadou Lamine la bisub Cheikh Mamadou Lamine loo ci def Cheikh Moustapha nga ko defal Cheikh Moustapha loo ko defal ndawam ñii mu yónni ci at bii ñoom ngeen ko defal teraanga ji doy na mat na sunu xol sedd na sunu xel dal na ci yéen nit ñaar da ko seq xuutul gis mi muy li muy jëfandikoo ak xuutu ruux mooy liy dindal ruuxam euh, ngir xatuk waxtu wi kii borom bés bi di Cheikh Mouhamadou Lamine dafa nekkoon koo xam ni nii ngeen mel moom ñi mu bokkal sëñ tuba di ay magam di ay rakam ñépp noonu lañ mel ci moom kaana maarufan bi xubbi ixwaanihi jamia wa mima yadullu ala dalik haasihi risala allati min xatti yamini shaqiqihi muhammadul mustafa wa hiya kama yali assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu usallimu salaaman taaman mubaraka afan bismillahi rahmaani rahim fa salaamun asna wa tahiyatun tahiyatan husna min katibi hadihi lhuruf muhammadul mustafa mujibuha al i'lam bi anni waqaftu ala karimi kitabik wa ladizi kitabik wa kuntu usarru aydan fi mulaqatika li tuuli l ahd walakin azunnu anni laa ubdi'u huna waxtartu liqaa maaka fi Touba aw fi husni maab loolu leetar la boo xam ne magam ja Cheikh Mamadou Moustapha moo ko bind leetar bii may bëgg a wax cheikh Mouhamadul Basir way juru cheikh Muntaqa Mbacke moo ko bind dafa wax ni bismillahi rahmaani rahim usallimu salaaman taamman mubaaraka ala axi ashaqiq wa muhibbi ashafiq asheikh sayidi al amin muhammad kataba llaahu lana wa lakum aaqibatan tuhmat lam yujibhu illa tawkiidul ahd wa injaasil waad fala tansuuna min saalihi duaaikum wajcaluna fi qaasati fuaadikum wa salaamu aleykum abiyaat yi may bëgg a wax cheikh mohamadul fadal magam jam bokkal sëñ Tuubaa moo ko bind bismillahi rahmaani rahim lillahi darruka min cheikhin hawa rutaban xad saanaha adabun naahika min adabi laa laa yujaarika fi lmaydaani min ahadin fi lilmi wal xilmi aw fi ljuudi wa nasabi wa inda baabikum tulqal wufuudu maan man kaana saa raxabin minhum wa saa raxabi maa sirta tuulihimul ihsaana fii abadin laa sirta linnaasi taqdi kulla ma arabi lettre bi may bëgg a wax way juróom wa Cheikh Ahmadou Bamba moo ko bind bismillahi rahmaani rahim faalam bi annaka ya muhammadul amin sa tanaalu maqaaman yaxbituka fiihi jamiu amsaalik wa anna kulla man kaana maaka jamian laa yarawna illa maa yasurum wa yanfahum fi dunya wa fi alaxira wa hum yadxuluuna aljannata bi xayri xisaab wala taskuk fi kawni haasa min allahi wa rasulihi wa minni ilayk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi leen di balu ak tey sant ñëpp di sant soxna maam Isa Mbakke kenn ku nekk xam na ab taxawaayam ci bis bii xam ab taxawaayam fa Sarsara xam ab taxawaayam ci yëngutu yoonu murid yépp ñu ngi koy sant ci turu sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin du ministère en Merci beaucoup pour votre euh, disponibilité et votre patience. C'est un grand plaisir de vous rencontrer et de vous recevoir. ngeen may ma ma kàddu bi ma def ko ci wolof ak ci tubaab pour mën a permettre suñu mbokk yi nga xam ne ay Sénégal duñu ay Sénégal yi nekk fii aussi ñu mën a xam tuuti rek ci li ñuy wax donc damay alterner wolof beeg tubaab bi. Donc, monsieur le représentant du ministère de la Culture, Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, thank you, Excellency, for coming. Excellence, monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc, représentant de l'ambassadeur, monsieur le Hakim de Tavrezeyna, monsieur le secrétaire général de l'association des oulémas de Mauritanie maa ngi nuyu Serigne Sidi Mbacké mi nga xam ne mooy li représentant xalif général des Mourides fii ci Mauritanie Serigne Mountakha Bachir Mbacké yàlla na ko yàlla yokk wér assisté ko yiir ko bàyyi ko yàgg yàgg yàgg yàgg suñu kanam sëñ bi maa ngi lay maa ngi teg nuyoo bi sa loxo di wax di la wax jottali ñu ko njaboot yépp di nuyu euh, sëriñ Abdou Karim Mbacke mi nga xam ne moo jiite délégation parrain bi moom ñi mu àndal ñëpp ñi nga xam ne Sénégal la ñu jugee ak feneen ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu. sama communauté maanaam communauté sénégalaise bi nga xam ni mi ngi fii ci Mauritanie di teg nuyoo bi ci loxo président Assane Gueye mi nga xam ni mooy jiite toutes les fédérations les associations maa ngi nuyu képp kuy kilifa diine bu fi nekk di nuyu képp kuy taalibe ku lim da ngay képp koo xam ne fàtte naa la nga jéggal ma mais daal fàttewuma kenn ñëpp maa ngi nuyu. di sant di sant suñu borom bu baax moom mi nga xam ni moo ñu may ñu teewee bis bu toll nii muy vingtième édition ziaru Sarsara bi man mu nekk sama première édition maa ngi koy wax keroog maa ngi dalal gan yi nga xam ne jóge nañ Sénégal di dalal gan yi nga xam ne jóge nañ feneen ci bitim réew comme ni ma ko waxee léegi di féliciter nag fédération de daayira Mouride. ak lassociation association des jeunes mourides yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Mauritanie pour seen taxawaay initiative bi am na solo loolu loolu loolu ku xool saal bi tey xam ne liggéey ngeen bu baax a baax a baax donc sëñ bi maa ngi leen bu baax a baax a baax maa ngi félicité aussi ñi nga xam ne ñoo demoon ci pèlerinage bi dem ko de ba sar Sarsara ba ci démb mu nekk jéego yu am solo lool lool lool lool. déplacement bi nga xam ne taalibe yi def nañ ko foofu ci Sarsara mu nekk yoon boo xam ne yombul climat bi ak contrainte yi nga xam ne am na yoon ñu bàyyi lépp lépp lépp dem ci bërëb boobu pour màggal bis bii yaakaar naa ni seen paspas pas nekkul loo xam ne nii defoon naa déplacement la boo xam ne aussi dama koy wax dafa am solo ndax day fàttali day tax ña fa dem fàttali ko tuuti du ñu toog di xalaat ni 1902 ba sëñ bi nekkee ci yan condition la nga nekkee woon tey ñu ngi ci 2024 dem Sarsara yomb ku fay dem di nga ko xalaataat donc ñu ngi xalaat 1902 lu ëpp 100 ans ca gannaaw. ci yan condition la mos ko nekk pour man équation boobu la képp ku sol sa daal di dem sa saana moom nga war a njëkk a jamono yooyu la foofu nan la nga ak ci yan condition la fa nekk woon et pourtant nekk na fa liggéey na fa ba tax lii am tey suñu kilifa diine kenn ñoom kenn mënu leen fay kenn mënu leen fay Donc, je disais tout à l'heure, Excellence, que la commémoration de cette cérémonie nous amène à nous rappeler en 1902 dans quelles conditions le grand chef vivait dans cette contrée lointaine à un moment où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait rien pourtant il a survécu au colon. Il a vécu dans des conditions dignes, avec un très chaleureux qui lui a été réservé par les populations locales mauritaniennes. loolu day wane ni Sénégal ak Mauritanie du tey la fa nekkoon bañ ko fa yóbbu dañ ko fa yóbbu pour fay ko mu dem fekk fa ay nit yu baax. ñu ko accueillir teeral ko ba yàlla yëkkati ko ak ngoon ba ci kaw moo tax ma ne sëñ bi lii am fii tey day yokk rek du wàññeeku moom donc ce pèlerinage permet aux talibés de mesurer non seulement le sacrifice du cher mais également de mesurer la dimension de Serigne Touba qui est une bénédiction pour le Sénégal pour l'Afrique, mais également pour l'humanité tout entière, comme l'avait dit le vénéré Cheikh Sidi Baba. Nous rendons grâce à Allah, le tout qui nous a donné la chance de vivre ces moments pleins d'émotions. Le, guide, notre grand guide, Cheikh Ahmed Bamba, serait très fier aujourd'hui de voir cette ferveur qui habite la salle. Combien son action impacte positivement l'état du mais également les relations entre le Sénégal et la Mauritanie, comme je Sénégal chance bi ñu am mooy suñu kër diine yi mënuñu leen fay dama koy wax toujours li Serigne Touba liggéey ci yoonu murid sëñ Alaaji Malick liggéey ko sëñ Baye Niass liggéey ko Omar Foutiyou Tall liggéey ko loolu la ñuy récolté tey képp kuy sénégalais danga nga amel ju kër diine yi képp kuy sénégalais amel nga leen parce que lu ñu am tey ñoom la dañuy jege toujours élection bu ñu demee bay waaj a jeng lépp taxawaat benn jour sama mbokku tubaab ne ma mais yéen lan mooy seen secret man ne ko lu ñu am kenn da ko amul muy suñu kër diine loolu kese la donc ñu koy rafetlu lool di rafetlu aussi diplomatie bi nga xam ne ñu ngi koy joué sëñ bi wax na ko léegi diplomatie commencé wu tey ca ñoom la commencé léegi léegi li mu tontu ñu ñëwoon di ko seet si loolu yaakaar naa ni stratégie diplomatique weesuwu ko ñëw di ko ñaan njëkk yaakaar ne moo nekk si position de faiblesse mu ne leen seen yoon kii na ndax bala ngeen di wax da ngeen di ñëw ci gën a fort ba pare effectivement loolu mooy diplomatie booy négocier ñaar ñu nekk ci xeex wala ñaar ñu nekk ci contentieux kii am doole ngay ñëw wax ak moom ba pare bu d'accord nga dem ci gën a faible loolu da ko jàngale bu yàgg avant tey ñuy egg si ñun avant ñuy dem ci ay école diplomatie lu am solo lool lool lool lool. donc may wax ci Sénégal ak Mauritanie li ma doon wax léegi du tey lu yàgg la te Olof Njaay def na lu dëgg lu yàgg dëgg la entre le Sénégal et la Mauritanie c'est un brassage très fort qui existe depuis très longtemps entre les deux peuples et je l'ai dit tantôt ça de ce travail constant en permanence abattu par nos à Nimzat, récemment, on a vu lors de la célébration de la fête. Aujourd'hui, on est ici. La dernière fois, j'ai accueilli le Khalif général de Niasen, de Cheikh Ibrahim Nias. La foule qu'il a accueillie ici à l'aéroport était impressionnante. Et ça, c'est important. C'est illustratif de ces relations extrêmement profondes qu'il y a entre les deux pays. Et je pense que nous, administration, nous, diplomates, nous devons tirer les leçons vraiment de cela. Merci. moment yi aussi moment ku la may profité di féliciter parrain bi nga xam ne moom la ñu tuddee bis bii ndax damay tënk parce que comme ndeysaan euh, guddi gi xam na li ma bëgg a wax yëpp duma ko wax guddi gi nga xam tuddee nañ ko Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ibnu Cheikhul Khadim muy troisième ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba am na solo lool may félicité sëñ Abdou Karim mi nga xam ne moo jiite délégation bi ak ñi mu àndal ñëpp di wax ne ñi nga xam ne ñoo initié approche bu mel noonu maanaam édition bu nekk mu am benn parrain li tax mu am solo mooy occasion la pour que parrain bu nekk bu buñ ci excès ñu wax mooy kan man keroog bi ma demee ci euh, inauguration musée bi mais lu bëri ci laa ko xam léegi léegi bi sëñ bi waxee ci laa xam lu bëri te képp ku nekk ci salle bi xam naa ni tey am na loolu jàng te warul yam foofu dañoo nekk ci jamono joo xam ne dafa yàqu xale yi ñu ngi ci tiktok bi ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu ngi saaga respecté tuñ kenn loolu li muy wane ci société xam nga mooy lan manque de repère. bu ñu nekkee ci société boo xam ne nii nag dañoo nekk ci perte de repère day baax bis yu mel nii ñuy fàttali jikko yi di fàttaliku suñu mag ñi lañu nekkee woon di fàttaliku kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa diine yi seen taxawaay parce que nit mënoon ni yow ci yoonu murit nga nekk mënoon ni murit nga mënoon ni tijaan nga mënoon ni julit nga foo toll di saaga foo toll di def lu ñaaw foo toll di wax lu ñaaw képp ku nekk murit di saaga nekk ci ci topp di def war nga xalaat sa bopp donc bis bu mel nii li tax mu am solo mooy loolu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñu koy wax sëriñ Baara moo ko ci bàpp nga suñu mbokk yi xam mooy kan le parrain de cette cérémonie qui est Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ibnu Cheikhul Khadim il est le fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké il est plus connu sous le nom de Serigne Bara. Il s'est très illustré Il s'est très tôt forgé à une personnalité du fait de son engagement à servir la voie du mouridisme. C'est un très grand soufi qui a fait sa réputation pour son amour à la religion, son attachement au livre saint du Coran. Il est considéré à l'unanimité de ses contemporains comme disposant d'une grande culture islamique très profonde. Il a également fait sa réputation du fait du nombre très important de production coraniques. Certains même que parmi les fils du grand chef, c'est lui qui a produit le plus d'exemplaires du Coran après sa formation religieuse. C'est important à savoir. Donc, ñu comme ça ak dimension bi mu am comme pare man yaakaar naa ni dañ ko war a rafetlu dañ ko war a rafetlu ndax li ma wax léegi. parce que en tant que pare ñuy wax di nekk ci moom wax taxawaayam dana tax ndaw si ndaw yi nekk fii jeunesse bi mën a xam ban taxawaay lañu war a am. parce que mënoon ni kii mooy sama guide kii mooy sama sëriñ mooy sama wasila te doo ci ay tànkam ku ko def rek xoolal xoolaatal sa bopp te jàpp euh, occasion yu mel nii jàpp naa ni njariñ boobu aussi la mën a am donc je félicite chaleureusement la famille du parrain et toute la délégation qui l'accompagne qui nous ont fait l'honneur de rehausser de par leur présence cette importante cérémonie qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde infinie au du Sénégal qui pour le salut le Sénégal et la Mauritanie. Je ne saurais terminer sans remercier les autorités mauritaniennes, au premier chef le secteur général. Veuillez transmettre nos remerciements le plus profond au président de la République, Mohamed Mounchir El Gazouani, à son premier ministre, au ministre des Cultes et à tout le gouvernement de la Mauritanie. Vraiment pour le respect et la considération que vous avez envers le Sénégal, au peuple sénégalais et vraiment à l'Afrique. Nous vous remercions donc pour les facilités accordées à la communauté sénégalaise, pour leur hospitalité, leur bienveillance constante envers cette communauté qui est en réalité chez elle. Parce que fii Sénégal bi fi gan kuy Sénégalais nekk ci Mauritanie yaa ngi sa biir dëkk ku nekk Mauritanie nekk Sénégal yaa ngi sa biir dëkk ñaari dëkk yi xëy na ñaari la wante benn peuple la c'est deux seuls pays mais c'est un seul peuple. Donc merci également d'avoir répondu présent Votre présence ici nous honore et nous réjouit profondément. Je réitère mes félicitations à la daayira maa ngi leen di ndokkeel bu baax di ndokkeel l' association du Maurit Mauritanie di leen encourage ne leen yoon bii ngeen jàpp boobu yoon yi bu leen ko bàyyi wóor ay exemple ngeen pour jeunesse donc continuer leen ci yoon seen yàlla na leen yàlla jàppale yàlla yokk seen taxawaay bu baax ba lii ñu commencé tey ëllëg mu yokk fuuf daan naa dem Grand Bassam ba ma diggante 2004 ak 2010 ba ñuy commencé Grand Bassam quelques nit ñoo doon dem ma daan accompagner euh, sëñ Mourtala ak sëñ Amsat sëñ Mourtala sax laa doon jëkk àndal avant sëñ Amsat di ñëw mais avant mooy jóge Abidjan toll na noo xam ne nii macha allah kenn xajul foofu te jàpp naa ne lii fu ko raw incha allah dina fa egg donc ñu ngi leen ñaanal di remercier ñëpp. di leen wax qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité d'assister le plus longtemps possible à la célébration de cet événement dans les meilleures conditions. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rahman ar-Rahim was-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السيد ممثل الخليفة العام للطريقة المريدية في موريتانيا السيد سيدي محمد مبكي سعادة سفير جمهورية السنغال الشقيقة سعادة السفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثل سفير المملكة المغربية السادة العلماء والأئمة ومشايخ الطرق الصوفية السادة الوفود المشاركة في التظاهرة الكبرى أيها الحضور الكريم أيها السادة والسيدات أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يشرفني أن أكون معكم اليوم في حفل اختتام موسم صرصارة هذا الحدث الكبير الذي يحمل الكثير من الدلالات والمعاني العميقة فهو حدث كان له الأثر البالغ في تقوية الصلة والأواصر بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والسنغالي حيث كانت الغيبة البرية للعارف بالله أحمد بومبا إلى موريتانيا بلاد الشنقيط وقد كانت تلك الفترة والتي قضاها الشيخ العارف بالله الشيخ الخديم في موريتانيا فترة مليئة بالانسجام التام وتوطيد الصلات الأخوية والمعرفية الربانية بينه وبين علماء الشنقيط مما كان له كبير الأثر بعد ذلك في قوة العلاقات بين مشايخ الطرق الصوفية في موريتانيا وبين مشايخ الطرق المريدية خصوصا والطرق الصوفية عموما في سنغال وقد عبر الشيخ الخديم عن ذلك كثيرا وسار خلفاؤه من بعده على نفس النهج أيها الجمع الكريم لقد عرفت بلادنا الطرق الصوفية الكبرى كالطريقة التيجانية بفروعها الحافظية والإبراهيمية والحموية والطريقة الشاذلية بفرعها القوفية والمتالية والطريقة القادرية بفروعها الفاضلية والبكائية والمريدية وقد كانت هذه الطرق تستقي أصولها ومناهجها من مشكاة واحدة وتسير على نهج واحد حيث البعد الإيماني في تحقيق مرتبة الإحسان التي جاءت في حديث جبريل المشهور قال فاخبرني عن الإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن هذه المرتبة العظيمة التي سار عليها أهل التصوف وجسدوها واقعا في حياتهم أيها السادة والسيدات أنكم تدركون جيدا وكما تحدث سعادة السفير مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين الشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشعب السنغالي وهو ما يجسد العناية الكبيرة والعلاقة المتميزة بين فخامة الرئيس السيد محمد الشيخ القزواني ورئيس الجمهورية السنغالية السيد باسرو ديمواري فاي وأعظم دليل على ذلك أن الرئيس السنغالي المنتخب حديثا كانت أول جولة له خارج بلاده إلى بلده الثاني موريتانيا فهذه العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين تتجسد يوما بعد يوم ولا شك كما قال سعادة السفير أنكم تدركون ما لهذه الطرق ولمشايخها من تعزيز دورها في ربط الجسور والتواصل بين الشعبين الشقيقين الشعب الموريتاني والشعب السنغالي وفي الختام أثمن عاليا ما تقوم به أسرة للشيخ أحمد بنبل من نشر لقيم ديننا الحنيف والمهج الصوفي العظيم وأعلن على بركة الله اختتام فعاليات موسم صرصار العام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 ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli si yonente bu tedd bi eh, di sant cheikhul xadim bu baax a baax di ñaanal cheikhul mouhamadou muntaxa mu yàgg fi lool eh, di sant bu baax sëriñ Sidi Moutada Mbacke mi nga xam ne mooy joriñu sarsara bi ànd ñun bokk ak ñun liggéey bi di dalal tamit suñuy kilifa suñuy lépp yoo xam ne mi sëriñ Abdou Karim mi Serigne Abdou Aziz Baar mi nga xam ne moo jiite délégation bi ndax bu ñu limee tuddee ki nga xam ne Serigne Abdou Karim di suñu kilifa mun na neen lim nañ délégation bi yëpp waaye nag ñu ngi si dool tam di santaat bu baax a baax délégation yi nga xam ne teew nañ fi ku mel ni Cheikh Sidi Cheikh Sidi bi mi nga xam moom mooy jooruñu xaadira yi fii si Mauritanie teew na fi ànd ay jorinoom ànd ak ay jorinoom ñu gën si ràññee Cheikh Gueye ñu gën si ràññee tamit Souleymane Lo Cheikh Gueye Souleymane Lo ak Cheikh Mbarek Fall ak Cheikh Mbodj ñu ngi siy sant tamit bu baax a baax suñuy mbokkum jullit ak bokkuñu réew mi ñu ràññee si tamit zawiya maam alaaji malik si jiite Baye Kalidou mi nga xam ne moo ànd ak moom liggéey bi fii euh, ñuy sant bu baax tamit mbooleem ñoo xam ne jóge nañ Sénégal teew fi si turu fédération Cheikhul Khadim wax dëkk tamit dañ ñoo soññ ndax boo xoolee ñoom ñoo doon jógee dëkk ak dëkk ñoo fekk suñu kon ñun suñu bopp ñu nga xam ñoo féete fii moo tani dafa mel ne ab soññ la si ñun ndax ku jéggi ay dëkk dëkk ñëw fekk suñu fi ndax lan ziyaare Cheikhul Khadim bërëb bi xam fa la nekkoon muy Sarsara kon loolu ab cant si ñun waaye nag tamit fédération Cheikhul Khadim ba léegi mi ngi dolliwaat di santaat kuréel yi xam ne ñoo ëmb mboolem daayira ñu nekk si biir fédération Cheikhul Khadim di santam soxna yi nga xam ne ñoo nekk si fédération Cheikhul Khadim ak soxna daayira Maam Jaar yi xam ñoo fi nekk tamit waaye tamit ñuy santaat bu baax a baax kuréel bi nga xam ne mi ngi si biiru commission fédération fédération Cheikhul Khadim muy mi xam ne commission bi nga xam ñoom ñoo yore lépp lu jëm si musée bi ak lépp loo jëm si palais du congrès bi ñu jiite si Baye Mbodj ndax dañ ne bu ñu tuddee Baye Mbodj mel ni tuddee mboolam ñoo xam ne ñoo bokk liggéey bi waaye nag ñoo leen di jaaja jaajëfoo bu baax a baax ndax gis nañ seen liggéey gis nañ équipe bu mu àndal yéene bi ñu am ak pasteur bi ñu am kon nag loolu la xam ne dañ ci dool di santaat presse bi xam teew nañu fi tamit ànd ñun bokk liggéey bi ñoom ñëpp teew nañ kon ñoo leen di sant leen jaajëf bu baax a baax di jaajëfe tamit croix rouge ak commission santé bi nga xam teew nañ fi tamit si njiitalu croix rouge ñu ko am si Fallou Diagne kon nag ñoo leen dool di leen santaat bu baax a baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala xam mooy maye yàlla ñu may xéwal boo xam moo gën a kaw suñu ñot si bak si Abdou Khadre Mbacké sant ñëpp di jaajëfal ñëpp abdi wa sukri wal kulli bisa law ridan duna suqti inda sarsara